ñuy seetaan direct fii yéen ngi yéen a ngi direct sama kër yéen ñu dugg ñu partagé leen parce que policiers yi ah, xaw ma ay policier lañ xaw ma ay lan lañ ñoo ñëw sama kër xaw ma ban heure lañ fi gis nga ñenn ñi dajji nañ bunt bi ñenn ñaa ngi nii di yéen ndoo ko def ay affaire xam ma heure bii xam nga non du heure yi ngeen ñëw sama kër sa waay mais waxal ma dégg non waxal ma dégg non police police a ñëw sama kër police heure bii heure bii gis ngeen heure bi jot ah gis ngeen bi jot ah six heures di matin ah. six heures nangam du matin Sénégal àdduna yéen ñëpp a ngi seetaan xoolal sama buntu kër lañ dajji directement xam nga ah soxlawul nëbbatu bàyyi baa rajo bi mu génn non non non heure jiwuma xaw ma leen xaw ma ay lan lañu yéen àdduna bi yéen ñëpp a ngi seetaan ah xam nga sama buntu kër lañu ñu sama buntu kër naan ma police bu ñuy nelaw ngeen ñëw di dajji seen kër yi naan police diggu bëccëg nekk fi lépp nekk fi ah ñëw normal ci kër fii dañ fi rey nit ah waaw se lañ fee rey nit dafa dafa am nit bu mu fi rey ah ah non bu commissaire commissaire mi yëg sama niveau la du noonu ngeen ñëwee sama kër sa waay waaw ban police ban police ban police ban police ak police bu ngeen mën a doon heure bii waru leen ko ñëw sama kër. heure normale la ngeen ñëw. ban mooy ban mooy heure normale. heure normale la ngeen ñëw. ban heure moo jot. non waxal ban heure moo jot. waaw non non. yee. six heures jotagul. dafa am heure bu ngeen war a ñëw bu fekkee police ngeen. yaa ngi may dégg fépp ci àdduna bi police dañoo ñëw daj sama buntu kër xam nga wanewuñu carte wanewuñu dara xam nga ah yéen ñëpp a ngi dégg gis nga leen ñenn ñaa ngi nii ci fenêtre bi kenn ngi nii taxaw yéen a ngi jàkkaarloog moom xam nga mu nëbb kanamam pour lan muy nëbb kanamam. lan lan ti jiw ma ah? ni mu def kanamam naan ma police yéen fi loolu mooy ngaaka mu li ñuy wax ci manqué respect ngi noonu vrai ngaaka la non non dajji dajji dajji yéeg wàcc xam nga dajji buntu kër jaambur yéeg wàcc heure bii te jiwuma li bañ mooy adduna bi yëpp a koy yëg ngeen ci mille nangam doomu aadama di seetaan ba pare amuleen droit ndeyam ñëw fi heure bi amuleen droit daaj yéeg buntu kër gi amuleen ci droit bu leen bu leen bu leen nekk di wax wax bu bëri sax fii lañ dama rey nit aw ma droit wax dëkk bi dëkku fa la du dëkku démocratie ubbiwuma ndeyam yéen waa monde bi yëpp àdduna bi yëpp partagé leen vidéo bi man laa Assane Diouf police ñoo ñëw sama kër xoola heure bi heure bii ñëpp a ngi nelaw aw ma dul jékki-jékki ay gëg gëg buntu kër xam nga Assane yee c'est police xam néew sax c'est la police dañoo dajji buntu bi tëpp ah mais commissaire moo la soxla ñu jël si ni da ngeen koy jël si heure normale ñu ragaluñu police bi fekk ay mala wala criminel wala dara root ci bunt fenêtre jaamu sax da ngeen koy dajji ah loolu mooy seen liggéey ah fenêtre ah. partage leen vidéo bi partage leen ko ñëpp gis ko xam nga heure bii heure bii lañu ñëw sama kër heure bi xam nga wane wuñu carte wane wuñu dara xam nga pincé sama bunt ne dañuy dugg par force loolu fan la am fan fan ci àdduna bi ban dëkk bu am démocratie ndax parce que dañuy wax suñu réew dañuy wax suñu réew ku wax ci président ku wax ci koo mënti doon ñu naan ñu ñu ñu am lu ñu def pour yow pour lan pour lan pour lan li mooy police bu Sénégal heure bii la ñuy yeewu di di di dajji kër jàmbur yi solu ñu tëni solu ñu dara am nañu dara loo ne ay policier lañu ah xam nga def lu leen neex gis ngeen ko ñu ngi nii en direct yéen a ngi leen seetaan Paris ñoon laa koy joxe ñoon laa koy joxe bu ma gaañ bu ma gaañ man yaay gaañ sa bopp yaa bëgg gaañ yow waaw man dama gaañ bi la loxo wax leen. non man duma xoolal yooyu yëpp duma ci fekk. waaw kon donc joxe ko yaa ngi seere ma nag sama loxo. ñu seere koy yow. du noonu nga may def du man de du noonu nga may def de. du noonu nga may def de barki yàlla yaa ngi may gaañ. yaa ngi seere ma nag sama loxo. génn noonu sama sama bàyyi ma na jël jël na jël amul del ma koy may ma ko may dara da may jox sama yére ma la dara génn saa yére ala yére ala yére ma génn fii saa yére sama téléphone bu ko laal sama téléphone bu ko laal gis ngeen ko ñu ngi nii en direct yéen a ngi leen seetaan li ñu yor man. bu ma gaañ ndax bu ma gaañ. man yaay gaañ yow sa bopp yaa bëgg a gaañ yow. waaw man bu ma gaañ taxal jeex na. xañ indi benn loxo. wax leen. non man duma xoolal yooyu yëpp duma ci fekk. waaw kon donc joxe ko sa loxo. non yaa ngi seere man nag sama loxo. ñu seere koy yow. voilà. sooy. <laughs> noonu nga may def du xoolal da ngay dox ak man de du noonu nga may def de. du noonu nga may def de barki yàlla yaa ngi may gaañ yaa ngi seere mën a di sama loxo. génn noonu sama na jël jël na jël amul delloo ma koy may. ma ko may dara. ma may jox sama yéen. ma may dara ma may dara.